الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Béthio soxna Aida Saliou dëgg-dëgg jëmmi Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ànd koog ñaari buntami soxna Batoor Saliou Thioune soxna Adja Saliou Thioune mbokk julli di mbokk taalibe yi waa réew bitim réew mbokki àddina xam ngeen ni ñoo ngi fii ci kër Soxna Bam bi di kër Soxna Ayda ci Thioune di kër Serigne Béthio di fii nga xam ne fi la ñuy waajale saa sune ne cantuk ajuma gii Soxna Ayda Saliou di jagleel Serigne Béthio te di ko tisaare ci àddina ci daari alxuraan yi ci prison yi ci hôpital yi ci mboolem fi ñu koy aajowoo ngir ak cant bernde la di ko joxe doo ci am xeej ak seen bég te jubloo bégle yoon woowu yi sëñ bi ko jaar jàngal ko ko teg ko ci jox ko mission bi ajjuma gu jot xam ngeen ni fii lañ koy defee di ko tisaare muy jëm ci àddina si yëpp tey jii nag ci ajjuma ji nga xam ni daa tombeek la 3 juin ku ne xam na ni fii nu aj cantuk ajjuma gi tey mosu faa àgg xéewali daa gën a yokk nag yi gën a yokk giléem yi gën a yokk ginaar yi gën a yokk ak li koy li koy togg ak yi muy àndal lan moo ko waral mooy cant gu mag gi nga xam ne moom la woote suba di 4 juin ci samedi bi mu mel ni togg bu àjjuma tey gi daa doon lay wane neexaay yi ak rëyaay yëpp cantuk suba gi na daa waxoon ni kat cin wolof may wax ne su naree neex bu baxee xeeñ kone xam na ne nag xetuk xeeñu neexuk cantuk suba gi moo feeñ ci bésub tey jii moo tax gis nga tey liñ ci def ci ay gétt ci xeet yëpp def ko ci ay bernde mosu fa àgg loolu nag day wane ni eh, jekkoos na cant gi ndax moom mooy cantaakoon bu mag bi kon fii nu toll àddinaa ngi riir gétt yaa ngi nii sunu ginnaaw gétti nag yi gétti giléem yi gétti ginaar yi gétti yi ba ci gétti ginaar yi mbooleem conteneur yi nga xam ne ay fruits la def ak yëfu jafaan te loolee lépp dara tax koo jóg lu dul cantuk suba gii nga xam ni mooy samedi bi mu fas ci yéenee sant Serigne Béthio ànd ko mboolo mi ko booleel ci lii mu nu defal ci li nu xam ak lu nu xamtikoon ngir waajale ko màggalu Serigne yi gi wattaayu màggal fii nu tollu taalibe yi ñu ngi jóge fu ne ci am na ñoo xam ne yegg si nanu am na ñoo xam ñu ci yoon wi ñii ngi jóge Europe ñii ngi jóge Amérique ñii ngi jóge Asie ñii ngi jóge biir Afrique ñii ngi jóge ci biir réewum Sénégal dëkk boo mën a tudd ak ci biir réewum Afrique dëkk boo mën a tudd am na mbooloo mu fa jóge ñi jaar ci avion yi ñi jaar ci oto yi ñi jaar ci luñ mën a jaar ngir fekk si cantuk suba gi fii mu ne àdduna ngi riir ngir fas yéene fekk si soxna Aida Saliou nu ànd sant Serigne Béthio waajal màggalam gi muy bis bii nga xam ni Serigne Saliou moo ko ni woon def naa sama màggal muy sag màggal Serigne Béthio wëlbatiku yit ne ko def naa sama màggal muy sag màggal màggal googu ren jii egg na ci fu mësta àgg ci màggal xaat te jublooguñu sax tabaski gi foofu la sunu cant nar a tàmbalee moo tax suba la cant gi loolu mooy li xew fii kon na ñëpp waajal te xam ne suba li fi nar a xew kun ko nettali ku nekk nettali bi du ca doy kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seytaani qad hustum dama بربي لا خدا من هند الأسماء